voilà ñu leen di ziar bu baax a baax di kontaan ci di leen bégee saa su nekk comme on a l'habitude de le faire ah oui ce qui domine l'actualité sénégalaise donc ci euh, la ñuy waxtaan quoi dañu constaté dafa am benn mbir boo xam ne dafa amoon aux Almadies d'ailleurs sax defoon nañ ci benn vidéo quoi doon dénoncer euh, inégalité bi nga xamante ni moom moo am Sénégal ak supériorité bi nga xam ne dafa am ñu nekk Sénégal di ko jéem a incarner ay nit te loolu ça ne compte donc loolu amul quoi waaw waxoon naa leen sax ne leen yàlla waxoon na ci alxuraan ne inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne moom moo gën a ragal yàlla kon man dèjà ki may ñee man man xaaj abdallah mooy ki ma gën a ragal yàlla ki ma dàq def lu baax ki nga xamante nii foo ko fekk lu baax lay wax ci nit ñi di jëf ci nit ñi lu baax ba pare yéene nit ñi lu baax ba pare gën maa mokkal alxuraan gën ma kaa bëgg dàq ma jaamu yàlla man kooku moom laay ñee parce que defe naa ne def lu baax moo gën tubaab sax wax na ne le bienfait n'est jamais perdu hmm? yàlla ñoo wax ne hal jazaawul ihsan illal ihsan mu demati euh, ca suratu isra mu wax ne in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha donc kon ngeen xam ne àdduna bii nii lu waay defut lu dut lu rafet nekkoo ci dara gis nga baax ak def lu rafet loolu rek moo am solo dans la vie te sénégalais yi ñun loolu dañ see war a góorlu parce que ñun Sénégal wax dëgg yàlla suñ dëkk la bëgg nañ ko trop parce que moo tax ñuy def ay live nii ah di jël ay risque di attaqué ñoo xamante ni bon ci Zaire <laughs> bon si li ñu foog ñoom ñoo ñu ëpp doole quoi te lu nekk mën nañu cee fekk mais dañoo war changé changer suñu jikko yi jéem bëggante jéem a soppante bàyyi naa feq gi bàyyi discrimination par parloo amut njëriñ ay deux poids deux mesures di jël nit ñi di leen gënale loolu amut benn njëriñ fii nit ñëpp a yem ñëpp a yem ci yàlla yàlla xamul milliardaire xamul pauvre yàlla xam na kan la xam doomi aadama nit moo tax nag yu mel nii bu amee dafa am yu bëri yoo xamante ni dafay feeñ maanaam injustice dafay gën a feeñ wàllu inégalité dafay gën a feeñ ci Sénégal parce que yéen a ngi gis euh, le groupe de presse de Youssou Ndour là GFM <laughs> mais xool leen nu ñu nu ñu doxalee ci affaire Iba bi la pauvre Iba Iba Thiam ndeysaan xale bu ndaw ñàkk bakkanam ci lan ci jàpp ne pour nga nekk jet setteur wala nga nekk jet setteuse xam nga da nga war di drogué wu da nga war di naan sàngara xam nga pour nga bokk quoi ñu ne kii bokk na quoi quand tu fréquentes les les fils des milliardaires xam nga da nga war a naan danga war a tox xam nga pour bokk quoi danga war a sax dem bay jël cocaïne drogue bi gën a bon ba dee fekk la ci quoi nga war a dem jàkkaarlook yàlla quoi xale bu ndaw quoi xale bu ndaw yàq sa àdduna bon génn àdduna ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm mais moom victime la parce que boo nekkee xale tamit donc am na foo xam ne boo fa tollee euh, voilà li nga bëgg a def lu bëri boo koy def sax bu nit ñëw di la wax dëgg da ngay jàpp ne kii def la bañ wala dara fekk da la bëgg quoi mais après lii mooy conséquence yi rek ah mais nag bon souhaité woon nañ leneen dal ko lu dul dee nga xam ne avertissement lay nekk ci moom mu mën a mu mën a repentir xoolaat àddunaam defaraat ko quoi loolu c'est très important donc ma dellu siwaat ci le groupe de presse de Youssou Ndour discrimination bi ñuy def ak par parparloo bi ñu nekkee ci seen liggéey ak yëfu naafeq yi ñu nekkee mooy le groupe GFM dama leen di tudd oui avec leur patron Youssou Ndour et ses frères Bouba Ndour Ndiaga Ndour le directeur de la télé ak le directeur euh, du programme ak waa waa RFM ah <laughs> parce que dëgg bu jotee da nga koy wax dëgg kenn du ko raay koi da ngay jaar ci digg bi yàlla dëgg la wax xul xaq walaw kaana mu ran <laughs> donc yàlla dëgg la bëgg quoi donte da ngay dee sax il faut oser dire la vérité man nag bon yàlla noonu la ma bindee quoi moo xam nga nekk milliardaire moo xam nga nekk ministre président man boo taxawee sama kanam bon je te considère comme un être humain comme nit rek laa lay jàppee quoi duma xool ne yow <laughs> voilà parce que am na yoo xam ne ndomba tànk la quoi dafay c'est éphémère quoi dafay dafay dafay jeex voilà donc ñoom ñu ngi def benn émission bu tudd xalaas xalaas boobu noonu Ndoye ban moo koy def ak euh, Mouhamad Mamadou Mouhamed Ndiaye ak euh, euh, Abba ñu gis ne dafa am benn discrimination bu ci am yow su fekkee da nga ubbi sa rajo wala nga ubbi sa télé wala nga am sa journal mais c'est pour les sénégalais dafa am foo xam ne boo fa tollee yow moomatoo ko sénégalais yi ñoo ko moom. tu doit informer les Sénégalais te li xew Almadies ce qui s'est passé aux Almadies mais c'est une information te rajo Futur Média dafa am ay auditeurs TFM am ay téléspectateurs journal bi am ay lecteur xam nga mais parce que goro Youssou nduur la voilà moo def ay bêtises am am jabaram takk doom Youssou Ndour euh, ndey soxna bàyyi ko fa dem jël sa appartement Almadies yàgg sa gel ngeen nekk fa invité sa ay xarit drogue bi di daw ba kenn dee ci loolu bêtise du ko gën a rëy ba pare ñu def ko nag en plein couvre-feu nga xam ne nit ñi dañoo war a toog seen kër léegi nag groupe de presse Youssou Ndour bi ñoom waxuñ ci loolu mais lan moo tax waxuñ ci loolu parce que goro Youssou Ndour la daam Amar le fils de Ahmed Amar yàlla na ko yàlla yërëm goro Youssou Ndour la moo tax groupe de presse Youssou Ndour di ko protéger malgré day def lu bon mais lan moo tax loolu loolu na fekk la ak ñàkk respecté auditeurs yi ak téléspectateurs yi c'est pas du respect parce que goro Youssou Ndour nga Youssou Ndour moom moom télé bi wala moom moom groupe de presse bi bon doo ci wax quoi ak lu mënti def te info te sénégalais yi am droit ci information rajo bi nekkal fi sénégalais yi télé bi nekkal ci sénégalais yi parce que goro Youssou Ndour la nga ne doo ci wax loolu naa fekk la te dañ koy dénoncer nag dañ koy wax ba ñëpp dégg ko dañoo naa fekk ñi fa nekk moomuñ seen bopp un journaliste doit être libre bu jaree ñu dàq la sax ci nga traité benn information boo xam ne da ko war a traité parce que nit ñi dañoo am droit ci information ñu dàq la ci mais jar na ko man de jaral na ma ko wax dëgg yàlla su ma fa nekkoon man di def émission fait divers comme xalaas dama koy jàllale suñ ma ci dàqee ma xam ne dañ ma dàq ci dëgg te yàlla dëgg la bëgg mais sénégalais ci boppam ñu ci bëri gëmuñ yàlla gëmuñ yonent bi xam nga lan lañ gëm nit doomi aadama lañ gëm dañuy jël nit teg la à la place de Dieu parce que kii mooy Youssou Ndour quoi pour yow Youssou Ndour yàlla la pour yow soo liggéeyul ci groupe de presse Youssou Ndour yow doo liggéeyati wala liggéeyoo quoi man gëwma yooyu <laughs> léegi ay télé rajo yii nii léegi ñëpp am nañ tele am nañ rajo man am naa télé ah sama télé ngi nii ngeen jàkkaaroog man di ma gis li ma wax nit ñi koy dégg ñun dañuy def ay live ay nit di ñu seetaan des milliers de personnes <laughs> mais mën naa am suñ live yi ñuy def nii des milliers de personnes di ñuy déglu en temps réel wala après en replay mën naa am ñun duñ déglu rajo boobu noonu wala duñ seetaanee duñ seetaan télé boobu noonu en temps réel TFM mën nañ ci def benn émission boo xamante ni mille personnes sax duñ toog seetaan leen parce que télé mënoo ànd ak moom di ko seetaan ci sa oto. wala nga ànd ak moom partout foo jëm te portable foo jëm mën nga ànd ak moom nit ki di def live nga koy déglu boo seetaan tamit nga déglu ko. kon donc ku fi am télé wala rajo nekk un patron de presse di jaay affaire di jaay ne nii laa toll di jaay affaire dictateur danga naan ko fa ñukk nga gëm sa bopp dem uti sa liggéey ba pare di bay sa waar ci réseaux sociaux yi parce que réseaux sociaux yi bi mu amee ba léegi ñëpp am nañ télé ku nekk am nga télé ku nekk loo bëgg a wax. da ngay dem di ko wax man su ma bañee euh, waa TFM suñ suñ bañee jàll sama information ma toog fii ni jàllaleel ko sama bopp donc ci loolu laay wax journaliste wala ak ku manti doon da nga war a am liberté rawatina journaliste liberté de la presse la ñu wax journaliste bi que ça soit mu ànd ak Macky Sall ak mu ànd ak Youssou nduur mu ànd ak keneen ak keneen information bu amee daf ko war a jàllale parce que ñeneen ñi mu ngi leen di jàllale waa xalaas jàllale nañ fi con sekk ci problème mu phobie bi yàq ko fi lu mel ni xamee di defaale ay règlement de compte Wally Seck problème bu mu mas a am gars yi dañ koy jàllale affaire yu jóg ISEC bii récemment ñoom jàllale nañ ko léegi lan moo tax affaire yi daam amaa bi du ngeen ko jàllale parce que c'est le goro de Youssou Ndour <laughs> ah, non non non non soyons sérieux nag gars yi yéen tamit Sénégal ñun ñoo ko bokk quoi nañ bàyyi naa fekk bi bàyyi par parloo bi quoi <laughs> ah mais lan la lan la ma ne la rakk Youssou sunduur walla doomi Youssou sunduur rek papa yi sunduur membre famille Youssou sunduur yëpp laa la wax képp koo xamante ni def nga ci loo xamante ni defuwul nga bokk ci benn scandale ak bu mu manti doon ñun dañoo am droit ñun ñu informer ñu ñun ñun ay auditeurs lañ ay téléspectateurs lañ ay lecteurs lañ ay internautes lañ dañ ci am droit mais sëñ Assane Mbacke dégg ngeen problème am bi benn xale bu jigéen bu génn na sëñ Assane Mbacke da ko ëmbal ba pare bañ ko doon ko yàqloo biir bi te pourtant day Fatou Ndiaye elle travaille à Walfadjri te information bi fu la jógee. Pape Ndiaye ci émission yi boobu ñuy wax balance ci la ko jàllale talal xale bi micro bi mu wax mu traité information bi ba mu leer mu jàllale ko te mënoon nañ xool ne Ndeye Fatou Ndiaye seen collègue la ñu protéger jëkkëram suturaal ko mais xooluñu loolu parce que c'est des professionnels liggéey bi moo laaj loolu comme nga ne man policier laa sama rakk euh, su rayee nit kenn du ko tëj parce que man maay commissaire de police bi wala man maay procureur wala man maay juge bi maa war a yore dossier bi mais warul demee noonu ah ça doit pas passer comme ça noonu rek la demee parce que kii mooy goro Youssou Ndour man Youssou Ndour moo may fay saleer mais Youssou Ndour salaire bi mu lay fay yow da ko mérité parce que da koy liggéeyal mu lay fay mayu la ko il faut que ça soit clair muy jël bénéfice am di ko lekk moog njabootam <laughs> di ci faj ay soxlaam yax <laughs> na journal bi nit ñi ñoo koy jënd ah su nit ñi jënd toon journal bi du am xaalis télé bi gaa yi ñoo fay yóbbu seen ay publicité di ko jox xaalis rajo bi pareil gars yi di liggéey li tax xaalis di ñëw mais nag dafa war a jaar yoon quoi sa waay gis nga honnêteté dafa baax quoi dans la vie Sénégal nag lii bokk na ci lu ko tardeel quoi waaw Walfadjri fu ñu mën a jàllalee scandalu sëñ Assane Mbacke ci benn xale bu ñu wax ne daf ko ëmbal bañ ko joxoon ko xaalis pour mu yàq biir bi ñu jaarale jàllale loolu yëpp mu jàll te seen collègue nekk fa Ndeye Fatou Ndiaye ah waxuma laak nag koo xamante ni goro Youssou Ndour la gars yi soyons honnêtes Sénégal ñun ñoo ko bokk quoi suñu bëggee réew mi jëm kanam ñuy waxante dëgg ñeme dëgg ñun dëgg fu mu ñu fekk dañ koy wax ah, parce que ñun yàlla la lañ ragal de ragaluñu benn doomi aadama biy dund ku ñu mën a rey nag ñu jël ballu fetal nga dóor ñu ko ñu dee wala nga jam ñu paaka en tout cas suñu dee dañuy dee ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg mooy dëgg quoi te Sénégal loolu moo fa yàgg am ah. xam nga tey jii booy xool même ah, la télévision national muy la RTS nga xam ne man dama cee am wàllu man man parce que sama impo moo leen di fay ak sama ay tax parce que man bu ma duggee ci boutique bi jënd benn saako ceeb fay naa TVA su ma jëndalee sama doom benn tàngal bant sax fay naa TVA mais kon man sama TVA boobu fan lay dem ci keesu état bi lay dem mooy l'argent du contribuable moom la ñuy fayee waa fonction publique kon suñu xaalis la RTS média publique la te gis nañ ne RTS depuis euh, Senghor ba léegi lan moo fi am <laughs> ku nekk président li la neex moom lañu lay jàllaleel opposition bi seen man manifestation ak seen événement benn journaliste RTS du ko couvrir <laughs> doo gis benn journal journaliste RTS bu dem di couvrir euh, waa Sonko seen benn manifestation seen benn meeting xam nga wala seen benn leneen lu manti doon même su fekkee lu ñuy wax sax c'est pour l'intérêt du pays ñoom ils considèrent Ousmane Sonko comme l'ennemi number one du président de la république te président de la république moom moo fal le directeur général général de la RTS qui rasinta la Talla membre <laughs> de l'APR xam nga loolu c'est grave télévision nationale nga koy jox koo xam ne maanaam moom ci parti bi la bokk militant wu APR la quoi ba pare nekk maire Gounass ku ko neex lay génne ci télé bi am na sama benn waay bu ma doon seetaan démb euh, muy Issa Issa Diène bon que j'estime beaucoup euh, mook euh, mook mon ami et frère OTD Ousmane Tanor Dieng depuis Bordeaux maa leen di nuyu de passage dama doon dégg Issa Diène di wax démb mu ne Ousmane Tounkara Ousmane Sonko autant pour moi ñaari yoon lañ ko mës a génnee RTS quoi bi mu commencé politique ba léegi quoi benn bi mu wax nag fàtte naa ko mais deuxième bi nee na mooy ci Euh, Macky Sall bi muy consulter opposition bi quoi ci crise sanitaire bi nii euh, coronavirus bi xam nga loolu c'est grave télévision bu ñëpp bokk nga jox ko un militant de ton parti léegi nag lu Macky Sall def ñu génnee ko magnifier ko ah defal ko montage defal ko benn genre publi reportage di ko ko tegal journal bi commencement bi Macky Sall la fin bi Macky Sall la ñemewuñ ñàkk teg Macky Sall même Macky Sall bu sëqatee sax dañ koy jàllale. Macky Sall mën naa wax ne sax bu doon ngénte instant bi sax ngénte bi en direct lay nekk RTS quoi <laughs> mais loolu c'est c'est dangereux pour un pays de démocratie quoi gis nga suñ démocratie bii nii fii rek la yem ci làmmiñ ci wax te ñi mu arrangé rek ñoo koy wax ah mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk au pouvoir di buum di buum yi di def lu leen neex donc au sein des partis tamit da ngay gis ne loolu moo fa am mooy ne ki nga xamante ni mooy le fondateur di parti moom mooy buum di buum yi parce que moom mooy financer parti bi kenn amul droit wax kenn amul droit kaas ku kaas ñu dàq la te bëri na ay victimes Macky Sall victime bu victime loolu la moo tax mu dem à la di du pouvoir gis nañ ci ay ñeneen ay ñoom euh, Malick gàkku kaas na fi AFP ñu dàq ko ah xalifa Sall kaas fi parce que dañoo bëggoon dañoo jël parti socialiste bi nga xamante ni Senghor moo ko fi bàyyi ñu bëgg ko seeyal ci biir APR nga xamante ni il est né il dans la dernière pluie muy APR Khalifa Sall bañ na du fi amee ñu dàq ko ci parti bi yóbbu ko kaso toroxal ko. kon loolu fépp la am maanaam par par parloo discrimination dictature fépp la am ci organe de presse yi ci parti politique yi ci télévision publique bi xam nga ci yenn société yi te tey boo demee tey dëkk yi nga xamante ni ñoo gën a démocrate ci ci àdduna bi comme France tey boo fa demee boo demee ci benn entreprise di liggéey da ngay gis benn note de service boo xamante ni Euh, comme euh, inspection des travail wala genre yooyu ñoom ñoo koy notifier quoi taf ko foofu di protéger employé yi employeur bi moom kenn du ko protéger parce que moom moo ëpp doole gis nga borom doole doo ànd ak moom borom doole da nga koy affaiblir da wàññi dooleem bu ko defee tolloo mën a am mais soo ñëwee xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp doole nga privilégié leen yëkkati leen ci ñu gën a néew doole ñu gën a néew doole fan lañ jëm da nga gis ne dañ ciy def ne comme nga am benn Euh, jigéen bu ñëw di liggéey foofu noonu nga bëgg ko doxaan parce que yow yaay patron bi bëgg abusé wu yow ci ne yow yaay patron yam pour bëgg ko doxaan ci loolu bu la porter plainte da ngay daanu wala employé bu góor nga koy jaay doole di ko imposer yoo xamante ni moom bokkul ci contrat bi parce que yow yaay patron bi bëgg ko di ko xañ ay droit yam bu la porter plainte da ngay daanu te Sénégal loolu amu fa yeneen gis le cas de Dame Amar dégg naa gars yi ñu ngi euh, ñu ngi subir ay pression ñu ngi leen di oo partout pour ñu libere gars yi parce que ñoom seen papa milliardaire la léegi ñun ñun ñun kon nekkuñ ci sécurité ñun ñun on est en danger ñun <laughs> ñun à chaque fois mën nañ dem prison ñu yóbbu ñu ci paquetage bi néeg yi nga xamante ni dañ fay dajale ay prix de deux cent personnes ay yeneen feebar di fa jógee mais ñoom dañuy dem def seen toj-toj après du mujj fenn quoi c'est ça le Sénégal léegi nag ngeen bëgg na dëkk boobu dina avancer gis nga yàlla <laughs> yàlla yàlla lu ñuy wax néewalaate doole ak tooñ yàlla du ko cautionner gis nga ci alxuraan sax gis nga yàlla ay mbiru tooñ ak daf kaa dénoncer dénoncer mbiru tooñ ak injustice yàlla daf ko cité ci alxuraan.